Omar ñu bàyyi la ak Pape Aline. Pape Aline Fall ah. ah, responsable Pastef Koundine euh, mm-hmm. euh, ñu bàyyi la nga nuyoo après ñu dugg ci waxtaan bi. waaw maa ngi nuyoo di nuyu sénégalais yi. Mm-hmm. nuyu mbengeen mi may jàkka mi may jàkkaarlool parce que comme moom sànni na ma maa ngi ñëw parce que xam naa ko ko <laughs> di nuyu Souka mm-hmm. di nuyu Omar bun Xataab sama xarit la ko dëgg yàlla di nuyu école Didi waaw di leen wax ni local yi loko bii vraiment dama cee kontaan Sidi Lamine ñas lii la mérité suñu xel yi ñuy doxee ak suñu xam-xam yu ñuy yu ñuy taxaw di ko waxtaanee mhm. ah ci xelu Sidi Lamine Niass la bàyyi ko damay wax Sidi euh, doom ji euh, Cheikh ñas ni ko deret rek nga noppaleeg Sidi Lamine ñun suñu lépp Sidi Lamine Niass dañ koo bëgg te moom dafa bëggoon sénégale yi mhm. moo tax génnam àddina daf nuy daf nuy manqué vraiment mhm. waaw waaw génnam àdduna daf nuy manqué vraiment mais yow it ni nga taxawoo yow Sa Ndiogou ni nga taxawoo Sidi Lamine Niass aussi taxawaay bu rafet la mm-hmm, mm-hmm. yow da nga sincère da nga loyal ci Sidi Lamine Niass mm-hmm, maa ngi leen di delloo kàddu gi jërë ngeen jëf na Seydina Alioune Fall moom nag ah. Mhm. loolu tax euh, des fois Pastef bu ne c'est un parti violent wala la man ñi ma jot a xam gis ñu yaru comme ni nga ko waxoon ci jomaay xamee ko ci kii aussi. ñu mhm. gis leen ñoom laa njëkk a euh, remarqué ku yaru ku dal mhm. ah, ku yoo xam dara firnde nekkul ci moom mais des fois damay am stress un peu. bu maanaam te démb moom stress bu gën a yokk ci man. heure bu may invité ku bokk Pastef li may njëkk lii mooy est-ce bu paree lii du xew est-ce que bu paree bu waxee lii wala lee démb ci émission balance benn booy ñëw toog fa wax ay waxam dugguma nag ci lu mu wax mu baax naag baaxul wax na kaa wax ko yooyu moom sama yoon nekku ci mais est-ce que nag euh, situation boobu amee est-ce que nekkul yéen ñi ñëw ci plateau yi des fois te doo leen am loo nit tiit parce que bu ne ba egg ci niveau nit mun a toog ci plateau génn ñu jàpp ko Seydina Alioune Sénégal mosul egg ci foofu. waa man de ma part personnelle aw ma jóge naa ko kunun ñëw ci jàmm incha allah bu may dellu ci jàmm laay dellu xam nga lu tax danoo bëgg réew mi danoo mm-hmm. bëgg a wax réew mi ni leen ñun ay gone yu loxo suñu seen loxo set lañ suñu loxo dafa set xeexuñu pour réew mi xulawuñ ci réew mi te réew mi dafa soxla ñu stabiliser ko te mag bu dee dénkaane day dénk ku loxom set day dénk yar ku am yar boo gisee tey ku mel ni Ousmane Sonko mm-hmm. physiquement boo ko xoolee li ngay njëkk a gis mooy yar li ngay njëkk a gis mooy teey li ngay njëkk a gis mooy dal te réew mi day réew mu ndaw mais day réewum kilifa nag réew moo xam ne mëdd na ku ne réew moo xamante ni bii jur na ku ne kon réew mooma boo koy laaj danga war a nekk nit ku yiw danga war a nekk nit ku xam looy wax danga war a nekk nit koo xam ne ku leer kàddu la ndax duñ ko dénk koo xam ne amul ñett yooyu mm-hmm. loolu laa lay delloo sa laaj. violence bi nag vraiment du ñun. wax dëgg yàlla prôné wuñu ko. bëgguñu daray lu dul jàmm ñun jàmm rek li ñu bëgg jabar jàmm mooy mbokkam. Omar bun Xataam bërki démb dimanche ñoo yendu ñoo nekk daana yendu ba min wi daanaka la ñu doog a jour bi ñu xamante daanaka mënuñoo tàqalikoo jour boobu la ñu xamante mais keroog dañoo xamante ci bu ñu xamante bugg mënuñoo sax tàqalikoo ndax jàmm gonga woon ak jàmm gu loon kër sëñ baara sëñ Baara bu bu sëñ sëñ Baara. ba def gis. mooy def oto bi tàkkee ci oto bi mu tàkkee ngeen ñëw di ko nemmeeku man ak yow ñoo fa toog ba min wi mel ni ñoo bokk ndey ak bàyyi ñun loolu la ñu xam. Mm-hmm. loolu la ñu yéene Sénégal. Mm-hmm. waaw jàmm jooju moom la ñu xam te moom la ñu yéene Sénégal te moom moo war a am réew moom moom moo war a xew ci réew mi. mais est-ce que actuellement li xew ci réew mi seen Aliou jàmm la ay oto yu ñuy taal. Mm-hmm. ay alalu jàmbur yu ñuy làq. ak fu mën a jóge ak ku ko mën a def. situation bi pour yow lan moo ñu ci yóbbu. man de wax dëgg yàlla taal ay oto lakk kër ànduma ci. Hmm. ànduma ci taal ànduma ci lakk. Hmm. ndax doomu aadama li muy def ba am këram. Hmm. doomu aadama bi li muy def ba am otoom. doomu aadama bi li muy def ba am ay accessoire naturel am soo demee taal ko day tooñ nga ko. wax dëgg yàlla tooñ nga ko. man de boo ànduma ci taal te taal loowuma kenn. ànduma ci toj toj loowuma kenn. ànduma ci lakk lakk ma kenn mm-hmm. wax dëgg yàlla léegi lan moo yóbbu foofu pour yow ah waaw li ñu yóbbu foofu parce que booy nee nan euh, tëbuñu di taal kër Ousmane Sonko lañu barricade ne ko doo wuyu doo génn doo wax waaw li ñu yóbbu foofu nag moom jant la ab jant moom kenn du mu bàyyi ma ma xool mm. ñun jàmm lañ bëgg waaye président laay Wade daana wax naan ma jël sama loxo def sa nga jël sama loxo def sa po sama poos jël sama kalpe ma jàpp sa loxo nga ni jàmm laa bëgg ko bëggul jàmm ñun dem jàmm lañ bëgg ci réew mi te bu ñu sañoon Ousmane Sonko kenn du bari gàdde bunt këram waaw buñ ko bari gàdde parce que loo xam ni bu amee jàmm du am waaye bu amul jàmm am bu amul jàmm am saa njógu yow fi mu ne maa ngi nii toog ak yow ci plateau bi su ma la pesul jàmm eh, jàmm du am. mais du la pes ndax damaa bëgg a jàmm. lu tax ma ñëw riir di la pes. parce que damaa bëgg a jàmm ci plateau bi. <laughs> loolu rek la. kon jàmm ñaara koy dox saa. jàmm daal ñaar koy dox. léegi man euh, li fi may ñëw macha allah waxtaan wi am na solo jàmm ñaara koy dox. Hmm. wax dëgg fa yàlla léeg-léeg ñu ne Pastef dañoo violent waaye boo xoolee. Hmm. Euh, ni nga xamante ni bi noon ngeen di fonctionner. Hmm. Euh, jàpp naa ni léeg-léeg lu ci ëpp dañuy dal ci seen kaw. Euh, moo tax euh, bu ngeen riposté nag nit ñi ne way xoolal liñ def ak li ñu di ak et cetera léegi Pastef jamono juñ toll nii daanaka dëkk yi nga xamante ni bi yëpp am nañ fa ay leaders leaders yi ku ca nekk ñu ngi leen di jàpp nan la parti bi di dundee loolu ci jamono ji nga xamante bi noonu lañ nekk ak nombre de personnes yi nga xamante bi tëj nañ leen ci kii yi est-ce que fi mu toll nii leader yi nga xam ñi nga xam ñoo jiite kii parce que yow bi nga waxee ne kunun ci leader yi nga bokk. Mhm. ba noppi eh, ak ni ñuy sachet leader yi maanaam di leen. wër mel voilà waaw sachalom yi nga xam ne ñoo def. Mhm. nan ngeen di dundee lool ak nan ngeen ko jàngatee. ah euh, saa njóog am lu ñu metti rek wax dëgg yàlla ndax am réew ku ko bëgg doo doo doxalee nii. plus de quatre cent personnes. ay boroom kër ay nit ñoo xam ne dañoo ay nit ñoo xam ne vraiment dañoo am seen ay liggéey di béy seen ay occupation defuñu dara lii de li lii ñu bëgg ni lii nekk ci réew mi dañoo bëgg mu soppeeku loolu de mooy seen mooy seen musiba loolu rek mooy seen problème moo tax ñu jàpp leen tëj ci kaso yi lii rek la de. dañu leen ciy wax dañuy dañuy xam nga ko man dëgg-dëgg loolu mënuma ci wax mm. ay cocktail ak mm-hmm. ay ay kii mm-hmm. man daal cocktail bi ma xam mooy cocktail bi ñuy jaay ci boutique yi nit ñi du ko naan. Eh? boobu laa xam beneen cocktail du ma ko mën a wax ndax xaw ma ko. waaye daal réew mi jàmm la soxla. mu euh, dégg démb alaaji soo Mbay wax lu rafet bi euh, soxna si mbay sama mbokk géwal te ñun ay géwal lañu jàmm rek la ñuy dox te jàmm la ñu bëgg mu prospérer fii ci réew mi ndax bu boobaa li ma yor dana dox sa boutique solution bii mu am solution Omar bun Xattaab buy ñëw mm-hmm. dëgg dëgg jaar ci yoon waaye réew moo xam ne fi mu ku ko wax ak ku ko wax lu yaa ngi ci stress mm-hmm. tey bi ma jaaree ci mbedd mi actuellement ñi ngi def marche mm-hmm. koo jaar foo romb nit ñi ngi tëj tëj ah, loolu loolu ah. loolu loolu man conseil wu ko président président de la république Macky Sall ndaxit suñu mag la suñu am di jàmm la waaye liggéey na réew mi de waaw réew mi président Macky sàll liggéey na ko liggéey na réew mi loolu boo waxee ni liggéeyul réew mi da nga malhonnête li tax ma ne liggéey na réew mi président Macky sàll bi mu fi nekkee lu fi ñuul lu fi xonkoon ñuulal na ko lu fi ñuuloon def na koy teel ay ay ay làmp 2004 la ñëw ci la la ñëw la ñëw nekk premier ministre Ablaye ab Ablaye Wade moo taxaw ni xaal bu ñor baa ngi nii xaal bu neex baa ngi nii ku bëgg ñam naa xaal yàgg naa ñam xaal waaye xaal bu neex baa ngi bi mu ñëwee 2004 ba léegi le projet Ablaye Wade jóge ci suuf jëm ci kaw waaye mm-hmm. waaye Sall réew mi bu ko bàyyi muy tàkk yoral réew mi comme ni nga ko yore ci fulla ak fayda ak way mm-hmm. ba jébbal ko kooku mën a jébbal waaye nanga ko jébbalit ñoo xam ne Sénégal ñoom ñoo ci ànd ndax bu boobaa buñ ko yore Sénégal mën a prospérer yor nga réew mi de mm-hmm. waaye bay jóge ci réew mi réew mi tàkk du jaaduwul te bu boobaa kenn du la ko bal mm-hmm. réew mii li fi Macky Sall liggéey fii ba àdduna tukki ñépp dañ koy tudd yow mënoo fexe ba analyse Sénégal duñ ko tudd duñ tudd Macky Sall. quatrième président incha allah loolu wéy na Macky Sall lay doon. léegi waaye waaye lu ko mën a yàqal pour yow. Euh, liñ ni moom lay def te man gëmu ni du ko def. troisième mandat man damaa gëm ni du ko def. Mm-hmm. man damaa bokk ci ñu gëm ñu gëm ni moom du def troisième mandat xam nga lu tax. yow ban parti nga ne. man Pastef laa ne. Mm. waaw yàgg la pour dama lay fàttali xam nga lu tax. Mm-hmm. Mm. gis nga man. Mm-hmm. géwal la non c'est que waxuma géwal la quoi c'est que tey man man man seen parti dafa nekk ci jafe-jafe quoi man dama jàpp ni dangay ngay expliquer jafe-jafe gi nga xam ni moom la parti bi mais tey boo ñëwee di ñu taggal président Macky Sall est-ce que kon président Macky Sall war ta dolli waaw est-ce que kon. mënuñu ko bàyyi mu doon waaw parce que ki nga invité moom ndeysaan nitu jàmm la loo xam ne jàmm jàmm jàmm mais tamit da nga comme Pastef nga bokk te instant yi kenn umpalewul ne patriote di instant yi seen devise mooy gatsa gatsa te gatsa gatsa foo ko dégg mooy ku la waxu nga xuri ko mais tam ci révolte parce que ñoom dañoo pare pour révolter wu donc instant yi moom bu taxawee toog ne jàmm lañ bëgg man dama naan est-ce que kii waa Pastef la est que ah. dëgg-dëgg yow Pastef nga bokk. te xalaatu apatam boo pare waa Pastef nañ la si mere. waaw léegi man ragaluma ko ma ci mere ndax man Ousmane ah. Sonko bi may nekk Sénégal xaw ma Ousmane Sonko. yaa ngi xuloo Ousmane Sonko léegi. maa ngi moom de. bi may nekk sénégalais. xaw ma Ousmane Sonko. bi may nekk sénégalais. xaw hmm, ma <laughs> eh. eh. Macky eh. bi may nekk sénégalais. booba sénégalais dong laa woon. juddu. màgg tekki ci réew mi. Mhm. li ma liggéey ci réew mi mu sax ci réew mi bëgguma ñu taal ko ci réew mi. waaw la moom waaw. bañ ku la jàpp bañ ku la jàpp moo tax ngay tëmbal glace nii. ma ne la fanaan fii. waaw waaw waaw may ma naa ni dañoo démarré yaa ko parce que. waaw may ma may ma ma ñëw may ma ma ñëw man. Mhm. xamuloo ma. ah non mais. defal naa ko. ah ca defal naa ko xamuloo ma de. Mhm. xëy na ñu ngi doog a mm-hmm. fanaan fii. waaw fanaan méridien. ak fanaan bil building bi gën a yaatu ci àdduna. ak mm-hmm. fanaan ci kaso bi. Mm-hmm. man moom laa yamale. mais réew mi kenn amul droit taal ko. ah loolu dëgg la. réew mi kenn amul droit moom kenn ah. amul droit taal. waaw mais xam nga. tey bu ma lay wax. Euh, damay ñëw yow ci xam nga kenn amul droit taal ko. mais dama jàpp ni tey caabi jàmm ji président Macky Sall moo ko yaakaaroo ni tey moom nga war a waxal te tamit dafa am yéen seen parti loo xam ni daf ko sibiir yaa ngi dégg parti bi nga xam ni moom nga wax ni moom nga bokk fi mu toll ñi ngi wax ni plus de quatre cent jeunes yoo xam ni ñi ngi ci kaso bi comprendre nga ñooñu nekk ci ay difficulté man dama jàpp ni tey boo ñëwee mën ak tamit li ñu tëj seen leader ba tey jaloog bee nga xamante ni bii moom la ñuy wax mënu faa dem yu bari yoo xamante ni bi jàpp naa ni boo toogee tamit war nga expliquer ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yi parti bi gis nga lu ñëpp xam lu ci waay wax mu doy hmm. gis nga fi mu toll nii. waaw ñëpp xam nañ ni suñuy quatre cent jeunes ñi ngi ci place ñi ngi ci biir barab yi ñu tëj. waaw ñëpp ko xam. waaw mais tamit la répétition est. waaw mais c'est à dire je ne je ne répétique pas répétique pas là-dessus duma ci répé euh, euh, kii. duma ci duma ci duma ko répété. Ah. ah loo xamante ni bii Sadio ko xam nga ko. ma hmm. xam ko keneen ak keneen xam ko. duma ci répété mais est-ce que woon doon fexe ñoom ñu génn seen leader tam bi ngeen yaakaar ne mën na defar réew mi li xat-xat yi mu nekk ci wàllu yoon mu génn ci waaw loolu Macky Sall est-ce que nekkul porter bi gënoon porté par rapport ci yow moo doon loolu que Macky Sall li mu fi def ak li mu fi deful nag ko ay nitam waxal. Mm-hmm. mais ah, yow nga ñëw nekk ci sa bopp quoi ñoom ñoom aussi ak lu Ousmane nga xereñ xereñ mm-hmm. du ma gis un leader de. APR di ko wala Benno bu ñëw toog di ko xalamal. loolu ngay wax malonet la. Mm. loolu ku taxaw wax ko da nga malhonnête te man dama honnête. Mm, maa la wax loolu. Mm-hmm. honnêteté. dama honnête. honnête moo tax ma ne réew mi liggéey na ko. Mhm. mais liggéey ko ba pare yàq ko moo dul xalaat. Mhm. Mhm. liggéey ko ba pare. yàq ko moo doon xalaat. si Sidi Lamine Niass dafa tabax ay édifices génn àddina ay doomam du ko doxal. bu waxoon lu koy toj. wala mu toj ko doog a dem bu ñëwee du ngeen fi fekk lii. am réew dañ koy tabax. am réew dañ koy sécuriser. am réew jàmm lañ koy sécuriser. xam nga luy jàmm ci. Ousmane Sonko ni ñu ko def jaaduwul. waaw Ousmane Sonko fi nu ko jaarale jaaduwul. Ousmane Sonko ni ñu koy def jaaduwul. li may wax mooy. lu màtt mayewul. raayu ku sàggantul mën na la ko may. xëy na li may wax. ñoom ñoom ñi nekk euh, ci seen parti waxul waxaluñ ko ko. mu am xel ak xalaat war war ko ko mën a waxal. war ko ko mën a waxal ni ko nag am réew boo ko tabaxee ba mu baax war a wëlbati ko di ko toj. léegi yow tuddee raay mooy dialogue doona war a dem ci dialogue c'est que moom tey. dialogue bi ñëwaguma ci. Hmm. man tey. Euh, may ma ma ñëw. waaw non non may ma dafa am balaa muy génn loolu après nga ñëw. c'est man yow li ngay wax nii. Euh, xam nga géwél nga. Hmm. macha allah nga wax wax ju rafet. wax ji nga wax wax ju rafet la. moom la Mansour Mbaye wax démb ngay wax nii. Hmm. lu mel nii bu ñu amoon ku ko wax ca dialogue ba. doon na baax. parce que euh, géwél lii lay jariñ defar. Mhm. bu réew mi tollee fenn fi bu ñu leen déggee ñu yëkkati kàddu addu ak dal mën a del si réew mi parce que mën nañoo jege buur wax ko ay kàddu yoo xamante ne bi tamit ay kàddu dëgg la. réew mi li koy tabax du dialogue. waaw du dialogue. waxtaan su gaa ah, ñëwal sa question bi. voilà waaw ci dialogue boobu laa ah, bëggoon ah, non non non xam nga réew mi lu koy lu koy lu koy tabax. waaw non du dialogue. lan la lan la waxtaan. Mm. la moo di waxtaan dialogue kii waaw ah, waxtaan ak dialogue du benn. Ah, déedéet xam nga seen mu leeral seen leader seen leader. wax nii waxtaan ak dialogue bàyyi ko mu leeral. waxtaan ak dialogue du benn. damaa toog sëñ Modou Asta Mbacké mm-hmm. ci sa kanam. Mm-hmm. ak sëñ Bo sëñ Baara. Mm-hmm. ñun ñëpp ñun ñett ñëpp kenn ku ne wax sa sa proposition. ñun ñëpp ñett ñëpp bokk na xalaat tey boromi xel lanu sëñ Modou Asta nee na moom ànd na ci dialogue. non jarul ñoom ngay wax lu ñoom li ñu wax. waaw parce que comme tooguñu fii. ci réew mi la ñu nekk. waaw ñoo waxal sa wax dama leen di waaw non damay def. parce que la wax mu na am fan ko waxee bëgguñu woon mu génn aussi. waaw d'accord mhm. léegi am nañ mhm. am na kon ñu ni ànd nañ ci. Mhm. am na ñoo xam ne dañ ne ànd ci. ma ne président bu fekkee da ngay sécuriser sa bopp. Ousmane Sonko ku ko xool xam ni moom du koy fayantoo. njàngam gii. yaram bii ak doxalinam bi ak teeyam bi ku ko xool xam ne am na yenn occupation yu dul xeex a xulloo ku ko jox réew mi mu defar ko moo tax dialogue ak waxtaan bu benn waaye dialogue dañ koy péncoo xëy na sax am na ñoo xam ne bu ñu paree dépense dañ ciy ndax am na ci ak président sama sama sama sama kii bërki démb yow sama kii nangam nangam loolu lañ ciy def am na xam ne seen lañ fay dem am na ñoo xam ne bu ñuy dem seere la mais le président de la république ak wax ko seen ay projet lañ fay wuti ah kay mais euh, fii la ñu jawok fekk man Bassirou Diagne moo ma yar li mu wax dëgg la am na ñoo xam ne dañuy dem ci président wax leen seen bopp soxla réew mi taxu leen a jóg dëgg la am na ñoo xam ne dañuy dem ne Ablaye waat dañoo bëgg doomi Ablaye waat di ñëw ci réew mi mhm. am na ñoo xam ne xalifa Sall la ñu bëgg ci réew mi te ñun waxuñu loolu Macky Sall waxal ak sa mën ngeen waxtaan fa ngay jaar ba xam wax ak moom yaa ko xam. bu ngeen waxtaanee jubóo. waxtaan ak dialogue du benn. ña dem seen bopp moo leen fa tax a jóg. man li may wax mooy demal sa rak waxtaan ki waxal xam nga yow li nga wax de yaa ngi dugg ci kàmb gu rëy. mënoo maa dugal yaa fa dugal sa bopp man dugal ma. doo ma ci dugal parce que man du ma nitu kàmb. Ah, nitu kuy kuy fanaan ci kaw étage la. waa déglu ma kàmb. yaa ci kàmb waa da ngay déglu ba déglu ma rek. waaw li la ci dugal kañ laa lay wax. du ma ci dugg ah, dama ci dugg da ngay déglu ma wax la. Ah, ñëwal fi mu toll nii loxo laa lay may. ma ne waaw ma may loxo mënuma dëkk <laughs> quatrième étage nga dima may loxo. ma ne ah non non non loxo laa lay may bàyyi ma may ko loxo. waaw may loxo. waaw léegi déglu ma man mii maa lay may loxo. waaw ah, mais man may la ko. yow yaa wax ma dugg ci kàmb. yow yaa ne ci kàmb gi man damaa ne ci kaw. waa déglul ma wax ah, waa déglul. Ah, waaw parce que bu fekkee ne da nga ne dialogue. doo am na ñoo xam ne bu ñu demee seen bopp la ñuy waxal. ba noppi nga ne président waxtaanal ak Ousmane Sonko. léegi wax nga ñoom Karim Wade. wax nga ñoom Khalifa Sall seen bos. ba noppi daan ne bos bii moo dagan lu tax nga ne yéele daganut ñooñu wax seen. problème man néew ma daganul de. ah yaa ne yaa ko fi wax kañ ñu ngi ko waxee kañ loolu la mooy kàmb gi nga dugg te yëgoo ñaawlu ma ko. yaa ne xalifa. moo tax boo ma bëggee dugal ci kàmb dama naan la yaa dugg ci kàmb ba pare. yaa kàmb ñaar ñëpp ni yow lañ mel. kàmb gi. yow yaa ne ci biir kàmb gi man ci kaw laa ne. waa xaaral ma wax la. jalo bàyyi ko mu génn. ma génn ci kaw laa ne. waaw yow yow ma bàyyi. non man Aliou dina ñëw. Sonko bu ko bu wuyu suwul ci waxtaan Sonko bëggul Sénégal ah maa la wax loolu. yow ban parti nga ne. Pastef. waaw très bien dee ko fàttali. Sonko. <laughs> bu waxtaanalu Macky Sall ci waxtaanu suuf waxtaan wax ma waxtaanu kaw de waxtaanu kilifa biir waxtaanu. waxtaanu dil. bii di déedéet waxtaanu. waxtaanu suuf suuf nanu waxtaan na woo rakkam waxtaan ak moom bul ma dugg dugg de. ndax réew mi waxtaanu koy mujj de. guerre mondiale sax ci waxtaan lañ ko lañ ko lañ ko. te pourtant am na ñu dee. dëgg la de Fall. nanu waxtaane réew mi mhm. tàkk-tàkk yi bari na génn dënn gi bari na mhm. wane wane wane wane maas yi bari na te réew mi mhm. maas yoru ko tabaxu ko réew mi waxtaana koy tabax dëgg la mais nguur gi est-ce que bëgg nañ wax nguur gi ngay est-ce que bëgg nañ wax laa tusiibanna lazina zalamu minkum xaasatan mm. dawal fitna donte du doo ci dara sa ndey du ci dara sa baay du ci dara mën na laa la teq la ëllëg dañ mhm. ko daw dañ ko daw mais seen Alioune léegi dafa am euh, benn dossier bu nekk suñ kanam mhm. mooy euh, suba lu ne mën a xew euh, dossier boobu nan nga ko gisee ak procédure bi ak ba fi mu toll tey ji ci àtte waa dossier bi de moom da nga ni lu ne mën a xew ndax nga dëgg de lu ne mën naa xew de mhm. waaye ku ne xam ne lépp lu xew lu dul jàmm ba mën naa am it de. Mhm. te nañu moytu nag mhm. jàmm daal la ñu moytu. dossier bi laa wax ndax dossier bi mhm. la ca xew xam nga ko xam naa ko. saa njóogu mi xam ko defal naa ko rek. dossier bi ñëpp xam li ci ne. li ci ne na noo liy jib rek jàmm am. na noo liy jib rek jàmm am. na noo waaw noo liy jib jàmm am. mais lan nga gis ne tey bu ñu ko àtte woon mooy mooy joxe jàmm ci dëkk bi ah, waaw. léegi tribunal ba daal waa ji moom. daa ragal la wax yow ful la nga am bul wax ñu la fi ragal lu ma wax de li may wax xam naa ko de. Hmm. atte nañu. waaw. seede yëpp dañu favorable ak Ousmane Sonko. Hmm. seede yëpp. ku jigéen daal mooy taxaw naan dëpp nañ ma dippar ni nañ ma def nañ ma nàngam buñ ne la indil preuve doo ko indi. Hmm. léegi loolu lépp gis naa benn femme ci ci ci gis naa benn femme ci euh, ci kii nee na bu jigéen yu waxoon ne violé nañ ma rek dagan na du viol la waaw d'accord femme boobu loolu gis nga loolu loolu loolu dafa ñëw teg niwul dara ko yërëm loolu waxi dof la ndeysaan bu jigéen loolu mooy kon réew mi na tas jigéen jigéen yàgg naa wéet ak góor te dara la <laughs> loolu loolu du noonu léegi loolu lépp am hmm. benn jigéen taxaw ni def nañ ma nàngam ñu àtte ba pare. Mhm. waaw non lieu su amul lay am. Mhm. xaw ma ko di. Mhm. Adji Sarr amul lenn muy indi. lu tax waa Pastef bu bu bu awakaam taxaw ni mi ngi nii mi ngi nii mi ngi nii daal dew toog <laughs> yow ñu wutalee caméra wutalee kii wutalee lépp amul dara looy teg ci télé bi nit ñi seetaan ko. waaw yor sa portable di wëndeel. waaw yor di wëndeel <laughs> waaw yow tey bu loolu amul lu yam <laughs> séentuwuma dara loolu noonu yëpp. tey nag bu ñu paree. Mm. baraay suñu léget ci jàmm. ba yee jib ndaw sii di aji saar mm-hmm. ak gone gii ko topp di Sidi Lamine Mohamed mbay na des fois léeg mu jaay nit sax kele USB 10 millions nañ wax ci seen mbir nag. xanaa ne ci réew mi nag di roobee rek lijjante te te du ñu wax seen i wax nag loolu xanaa nag ci réew mii. Mm-hmm. réew moo xam dañu wax ni justice euh, am na fi. Mm-hmm. di complot rek. te ren nañ wax seeni wax nag. waaw. waaw léegi génn naa politique bi. bisimilah euh, dama gis ni sa biir wax ngéwlu fees na ci. parce que damay ragal danga am ay géer yi bokk APR moo tax mënoo ah. war a nekk communicateur kii. Ah. Ah, mais mais 1989 la ma sama papa wutal kii woon. géer. 89. kon benn la ma sam papa wutal géer benn géer mm. benn géer te ci laa yem ba ma ko ñemee soxlaatuma lenn géer mm. Mm. mooy c'est que dama da nga may may saa njóob du néew ma ci pax doo ma rocci non non non da nga may may de non c'est dafa am benn dama bëgg daf ni daf ni génn na ci non saa njóob damay yàq ko débat bi non non non damay <laughs> bàyyi ma développé ab géwél ab géwél la ma sama papa wutal géer <laughs> waaw kuy sa géer waaw kay dama bëgg nga bàyyi ma kuy sa géer daf maa yóbbu marché bu ñu naan marché Ndumbe Diop. Eh? Mhm. jëndal ma marché Diourbel. déglu ma de. Hmm. Hmm. Ndumbe Diop. Diourbel waay da nga may da nga may déglu. ca Diourbel. waaw non non du man nii man xoolal. man kenn du ma <laughs> solox soloxoo. Ah. benn géer la am jën benn géer ma teral te ci ah. aw ma keneen Ousmane Sonko du sama géwél du sama géer. waaw mu dem marché Ndumbe Diop jëndal ma machine. Mhm. jàngal ma ñaw. Hmm. ñaanal ma. Mhm. ba ma mokkal ko lool man ko lool. Mhm. incha allah ma dem di ci def lu ma bëgg di ci faj lu ma neex. Mhm. ci ñaaw benn géer laa am muy boobu géer. muy masin sama papa 89 la ma ko wutal. Eh. beneen géer aw ma soxla ma kenn man du ma lekk may maanaam maanaam moom patron kooka nag sa patron ngay wax géer quoi. du sama patron sama géer la ndax mooy faj samay soxla. waaw machine bi ngay du sama du faj samay du faj samay soxla. da nga am la am. ah d' accord eh mais comme géwél attention géwél dox na de gisoo waajooñu nu mu tuddee bu doxee nga laaj leen man dox doxuma ci Alassane Mbaye gisoo ko. yëguma ko Alassane Mbaye xaw ma ko. léegi ba ngay jéggulu dégg naa ko mi ngi daan ko ay da su ma la tooñee xaw na ko woo ma yedd ma xaw ma alsan bay sama métier boobu alsan bay mais xam nga moom dañ bu nee buur géwél nga bokk ak El ñëpp xam ko ci wax wax ju waaw nga bokk ak saale bi gën ñëpp xam nga kon lu baax rek ngay wax ci réew mi ak jàmm voilà ñu ngi noonu ci jàmm rek lay kon ci ah. jàmm ngay dox léegi far Farba Ngom doxalinam moom mi ah. taxaw naan procès bi Euh, li li nar a am mel ne moom dafa yor verdict bi te kat yoru ko est-ce que eh, euh, tey jii waaw ne gars yi neen géwlu président la est-ce que ah. géwlu noonu la war a ànd ak kiiwam géram si ni ngay gisee mu ni bu non non procès bi ma daf mel ne anticipé na ci maanaam wax na ay waxam wax ni sax la Idrissa Seck waxoon dal lay fekk na la coppet te ne nii kërëb kërëb yu bari maanaam taxawaay ba mu ñu taxaw ci taxawu kilifa parce que comme yow da nga ne sa liggéey mooy sa géer parce que da dem jàngi métier. mais ñi topp mokkal ko loolu man. waaw waaye mais ñi topp ci ginnaaw nit. Mhm. jàpp ne rek danoo war a léeg sol lu ñaaw ma ni koy moo ko ñaawaloon. non di ko ñawal moom. <laughs> naa la ñawal yow. incha allah. non dinaa ko ñawal loolu naa la ñawal. ko. ñawal. saa njóogu du ko ñawal. te waay taxawaayu Farba Ngom. Eh. Farba koy delloo ca portable eh, kii. Motorola te portable. El Hadj Diouf xam nga El day wax naan yor naa yor naa yor naa. Ah. te la mu yor amul. Ah. xamul lu mu yor amul lu mu yor du wane lu mu yor. Hmm. noonu la waa jooju ngay wax nan la mel. te loolu day noble. dara du du xew. Hmm. macha dara. jàmm rek kay am. jàmm rek kay am ci eh, man daal yow man daal parce def man daal macha allah daal. jàmm rek am macha allah. macha allah di fàttali ni Pastef la nekk. Pastef la bu bëgg jàmm ndax ñun jàmm moo tax. waaw jàmm waaw jàmm. waaw moo tax sa sëriñ bi ngay bàkkoo sëñ Sidi. sëñ Sidi bu ñu demee ci moom ni ko dana bëgg réew mu jox na ko. Ah, jàmm moo tax sëñ Babacar bu ñu nekk dana soxla réew mu jox na ko. jàmm mooy tax sëñ Basirou. waaw bu ñu tegee ci réew mi même jàmm mooy tax Macky sàll président Macky sàll bu ñu nekk soxla réew mu jox na ko. dëgg la hmm, d'accord gone yi set loxo la d'accord gone yu jub lañu am ay géeri métier waaw gone yi fooy suñuy bopp eh. ak di wax naan bu nu joxee ay résultats réew mi dañu toog dara du fi xew réew mi jàmm doo nga fi xew loolu passif danoo quoi maalox loolu nag te it nag eh. dafa am loo xam ne sama benn grand frère da ko doon wax eh. euh, géwalu Macky Sall bi doon wayal Macky Sall uh-huh. euh, te mu daan Dunjaay ah Dunjaay Mbeng Dunjaay Mbeng géwal yi danoo daje Cheikh Tidiane Fall toog ni leen nag am nañ président bu bees waaye ku ne xam ne Doudou Ndiaye Mbengue mii mooy géwélu président de la ah, waaw loolu dëgg waaw loolu moom ñëpp xam ah, mu nekk ak moom ku ne nekkut ak moom nag président xam nga du géer du maye Macky du maye ah bon te yow yow daga daga te yëwénu de rafet na Alioune Ba junni la lay may junni ni la lay may. <laughs> non saa yow il faut que ñëwaat. non man dama laa bëgg. barki ah, yëndu yàlla waaw moo doxee <laughs> man dama la bëgg. non dëgg la parce que ndeysaan. non wax na ma ko waaw da nga da da nga resté. ndeysaan jërëjëf nekk ci dëkk bi mm-hmm. yem ci wal fajri. vraiment. ku ne xam nga calcio bi eh. ku ne dem fu ne <laughs> yow nga resté rek waaw des sama doomi bàyyi rek resté nekk ci moom rek vraiment <laughs> vraiment loolu lu ma neex la ci yow non da nga fi ñëwaat il faut nga ñëwaat non yow Omar bu non du ma la ñawal damaa mën a xuloo du ma ko ñawal Omar lay ñawal lu rafet jox ko. na ah. macha na. <laughs> ah baal nga waaye maa ngi nuyu waa Pastef. bu Pastef national. Mm-hmm. di ñaan jàmm ci réew jàmm mu jaboot jàmmay mbokkam. dëgg li ñu liggéey ci àddina depuis nangami at. Mm-hmm. buñ ko naree yàq ci réew mii jamono jii du baax. nañ leen nañ leen def jàmm. dafa am góor gu baax gu ñuy wax El Hadj Abdou mm-hmm. saa yu waxtaan amee saa yu baj-baj bu demee nii rek. Mm-hmm. xel yëpp day xalaat El Hadj Abdou. dëgg la. loolu jàmm xalaat El Hadj xam ni. Euh. waruñoo bi mu réer. dëgg la El jërëjëf Seydina Aline Fall di ko jaajëfal bu baax ah mhm. saa yëngal na ko bee géwél bu tey la mais doon tamit koo xam ne prak doo uh, ñëwoon di nemmeeku Cheikh Bara ci dimanche bi bi oto bi lakkee ñu daje fa waxtaan wi neex mhm. mën ko ñëwal ci plateau bi non non ñu waxtaan fii kay muy ñëw di ñëw ah, mais ñu lay ñaanal bu baax di la gërëm bu baax di la sant léegi bàyyi naa xolo bi waaw naa di ko di ko sant bu baax. sant bu baax jóge ba Kounoune aussi ah. ñëw jegewul mais teel na fi ñëw. teel na ñëw koy gërëm baax di la ñaanal di ñaanal njaboot gi yëpp. suñu borom suñu borom te yokk la jàmm ak sutura parce aussi message bi mu tey lu ci am solo. mais daf ci am fu ñuy toll day am ñoo xam ne. message bi day baax parce que am ñoo xam ne dañuy xam rek. mais am ñoo xam ne dañuy ñëw jouer bal à kon ñu lay ñaanal suñu borom yokk la wér yokk la jàmm yoo tam allahuma amin Omar Omar tey moom macha allah wala vraiment hmm. ragalunu déedéet duñ lay wax dara dinaa la ak man kenn jërëjëf kii Pape Alil kontaan nañ trop nag Fall eh, ndax eh, dañ naan rafet na trop rafet na rafetati na eh, kàddu yi macha allah li fi jëpp yëpp muy jàmm te lu dul jàmm rek jàmm ko gën